yàlla la ñu jógee moom moo sàkk tamit pour heure bi ñuy dellu tey kii nga xam ne nii mënul jaaz du ñàkk mukk ci la bokk mu suñu papa Double Less jiituñu nag ndax xam naa ni lu mu yàgg-yàgg ñu ne dinañ ci jaar ko ñaanal yàlla moom mi jiitu yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana yàlla na ko cat topp bañ koo jàpp yàlla ko bu ko cat fekk ci bàmmeel yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def di ñaan yàlla rek yàlla teg ci njaboot gi loxo. Omar Sakho mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp bi. ci kër gi. yàlla mooy ko xolu muñ. ak rakam ñoom Sa Thiès. ñu topp ñu moom lépp. di ko jaale famille Sakho yëpp. di ko jaale axlu lambo di ko jaale waa Guédiawaye ku ci mel ni Malick Gakou. Pape Mamba ak école Lille Balla ku ci mel ni Lamine Golo. bàyyiwuñ kenn ko xam ne vraiment yaa ngi Guédiawaye dina ko jaale. kuy gi lan moo la gën a marqué ci sama jur dem sama ngi koy fàttaliku mu noonu bu amee ku muy jox roi xale yi man la seet ni man maa ciy nekk roi bi wax boobu dafa dafa may marqué ba tey journal ba tey dama koo denc. Balla Gaye combat moog Yékini maag jëli avance bi man ak Nas ak Thierno Gueye sama oto sama marges man asalem benn kër soxna papaam bu nekk foofu ñu wàcc nii kon defe naa ne maag Balla Gaye am na relation yu particulière kon defe naa ne tey bis bii sunu waajur moo dem sunu xarit sunu confiance sunu royukaay tamit géej la ci ñëpp lii rek jàngal la ci ñun ñu bañ di ñu bañ di xëccoo. di bañ di weeroo di xëñ xuuloo ŋaayoo dee lekk man lii. Mhm. kon defe naa lii tey ku gis lii rek xam ne ñun jàmm rek lañ seex. Mhm. ku gis lii xam tey jàmm rek lañ war a seex ndax tey kii dem tey lii boole ñu ëllëg dina tourné ci man. Mhm. te bu tourné ci man Balla Gaye nii ma ko waxee la koy waxee wala nii ma ko defee la koy defee yàlla na yeex. kon defe ñun benn lañ ñun membre sax euh, njabootu géej géejawaay ñun njabootu lam ñëpp benn lañ. kenn ku si bi ñuy bi ñuy kii léegi euh, bi ñuy def entraînement de terre bi euh, sama sama yaram dafa daw dama gis Boy Niang ci ginnaaw ci làmb rek man loolu te adversaire bu Balla Gaye la kon nañ xool ci ñun adversaire benn quinze minutes vingt minutes la li des ñooy àndaat.